mutul bopp almet ca kër ga ma la defal ajjana daal de ko may naa leen ku fi yeewoo ku mu doon su faatoo su borom yërëm ko dem yóbbu ko ajjana loolu bi muy rëdd kër gi loolu la wax si bàyyi ba noo mbittu la ànd ak euh, sëñ Fallou Diop sëñ Ali Ali Sarr sëñ Moussa Diop euh, xam naa cheikh bi daa ñëwut muy sëñ Moussa Basirou Sène bàyyi euh, ba nag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 wala wala ju wala ju ku nekk Amérique mbaa France te du yàq ci ngoonalam dara wax na ni Cheikh Rafal may na ko dara ji toll ni mën naa bàyyi coo bàyyi koo Cees dem bar barsàq lijjanti waayam te du yàq ci ngoonalam dara waaye yu la cuun góor yàlla la ko am ngërëmul yàlla la wali kaamil la bi yàlla dogalee armée française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 ne ko ku dul sëñ doo Cheikh Rafal amul mbooloo mu la mën a demal ba li nga bëgg nga am ko noonu lañ kalaamee sëñ tubaa ak Cheikh Rafal noonu lañ noonu la ko doomi soxna yeeg ceddo yi noonu lañ ko kalaamee maa Abdouloo cala Ibra Fatim Sarr cala eh, Samba Loma Ndiaye cala Samba toog nanu muy muy nettali sëñ Mourou Mamoun woo ko woo ma woo Piti Juxaane mu nekk ci néew yi sëñ Mourou ñuy attaaye mu yor leefaa gu mag boobu wante li amut mu ne ko nettali ma géej gi ak na ca doxee na ngeen ca doxee sax may nettali baa ngi mu yooxu dugg ci rondal gi bi mu yéegsee ci doju wiir wiir ak bi ma xëq dër fëkkee juróom-benn lekk leen gëdd ko moom mënalu ko dara mu dawee ci daju mu neen fekk suñ caaco daj moom ne diggante bi 7 kilomètres te waq wi nuur ci kaw géej gi ca la door a nettaleelu daal di yooxu dugg ci rondal gi sëñ mu doon ni ko image bi nga gis waaye fi nga nekk rek fa nga doon gis seetaane jinne ja ëpp na junniy kilomètre ñu dem bi ñu dajalee loolu Serigne Touba ne waaw waaw Sénégal day moom lu fi waa indi ci jàmm man na ko indi ndax moom la ma yàlla cëreele moom Serigne Touba daane baabilaa laa dëkke Serafal dëkk ci keef gi muy Mbàkke ak Kajoor waaw Kajoor ak Bawal daal daal di ni nañu ma tànnal seex yi na ma kenn ku nekk yët ñeent gën gaa néew ñett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 suñ caa bind saafara jox ko Cheikh Fall mu jox ko sëñ Ibra Coon Sabanaar ba Cheikh Galataal ñëwee woo leen ñëw sëñ Fall Fall ne bàyyi Ibra Coon daa mel ne Galataal mi yow lay woo mu ñëw ni ko mbaa jàmm ko suñ caa nee si nañ ko jëfandikoo bàyyi Ibra Coon sax def na fa yëfi murit daa ne ah sëñ Bamba ci saafara lay aaree.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 suñ fallu fall ne ko loolu faat na mu ne kon man ñaan naa suñu borom ak darajey salaatu faati ak siru ba ma des ma des foofa man yaari jullee moom soxlu ma ko waaw siru booba moom la jëwartu kamal di wax bi moom lay junj nga xëy talsam ba ku ko tëg bët ku mu tëg bët kooku ku mu tëg jana soo ko dee liggéey tool boo dugg ñax gu fa sax nawu ko lekk mbaa xar mbaa bëy ku naan ca meema mbaa nga lekk yàpp demaa jana loola waral tijaan yi suñu mbokki tijaan wax ni kuy widd salaat faatiya da ngay ramm loola soob sa jabar ramm loola soob doomam ramm loola soob moo tax sëñ sooy bu bind ni ci xuratul ay ni benn peru salaat faatiya ku ko jàng ku jëfani doo dem àjjana faase nga mbaa di nga dem sawar bi at ki xet yi mu talsa bi talsa ma def naa fukki araf ak la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 bàyyi bi la di ko ngàdd daal di tudd ndey tudd saaga làkk ko ci tubaab wax ko ci wolof làkk ko ci araab saagay ndey waaw nee na ko dinaa nuun xaaf tudd ndey dinaa keef taa tombe tudd ndey tubaab bi di qu'est-ce qu'il y keef taa tombe ah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 dégg nga wax moo ma wonub léegi ci yaram ni ma badar la ma bal yi dale daal ni ma ba ñu rëy ja ba ñuy dagg tànkub jaafira bañ koy dagg bal ba la ko dagg moo ma rombut jam ma barab sàngam daal ni óot ba ñuy rëy am sa bal sàngam nga dal ci barab sàngam te juróom-ñaar fukk benn la ñu rëy óot ak am sa bi dañ ko may alxames jabar ajjuma ci neuf heures mu faatu bàyyi ne bañ koy rey di ko dóor bal mu daanu bal baa ma gindiwaale waaye booba saawaa jàng ci biir di raatale te xamuñu kii mooy kan mu sëñ Bamba ak Cheikh Fall yi wa ma la taala moon ñu ñëw ko kii lay faj bàyyi moo yëbra cuun sàmmanaar ni ma ma concentré wu li tubaab di wax ni sëñ Tuubaa yaag Cheikh Fall wufu may fa alxuraan wufu ma fi xasida wufu ma fi ismulaay lasam salaatu ala nabi yéena ma indi fii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 dañu may rey mbaa ñu rey ma àndal mm-hmm. nee mbir romb ko ne ko boo dóor naar bi liy waaj day ñëw yow lay dóor mm-hmm. nee ba ngelaw romb ma def ma ne sàmbraayal ma gomfale yére yi ma yor di xottiku tubaab bi àkk ma ni ma kës ki yaa defunki mm-hmm. nee ma ma ma ba ceinture gi ma takkan xët casque bi ma soloon ci saa bopp ceinture gi dagg fetal gi ma ràngoo woon gaawee ku ni gëpp ci suuf bay mu doyee mbayaasa ne ne keroog juróom-ñetti nit ñi nga xëy ñoo noonu escorté dañoo daw ñi ma wutu ñoo jigee yëbal cuun sàmmanaar maa ñëw jox ko bidon bidon yu ndaw yi xa nickel yooyu yu weex yi maa ko sàññi jox ko mu naan saabas ma sàññi basam sotti ko ko ci bopp bi mu xëndamtu ko ni Mourou Mbaye Massa Mourou Mbaye yow a kii yow a ma ne ko mën a mun ma gisatuma nit ñi damaa defoon maa ngi badar damaa defoon maa ngi xeexu badar bi yàlla fenkelee jett bi yoon ci seen saa ci laa defe ni fi laa bay munu mbéy saani ko noo raw badar ndax suñ tuwaanu ko digal ak seera faal fukk ci gars yi kenn ci noonu bàyyi bi ne loolu concentré wa dikk ni ma dumal naar bi mbaa ñu duma la ma buuta mbayee mu mel ni mm, saaxun gu jël uh, xobu garab ne ma buuta mbayu jaay sa ne ak naar bi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 wér dan daal ne ma yaay kan nee na ko man ko maa Ibrahima Xalilullahi maa Ibrahima Cuun Samba Naar moom Cheikh Rafal moom Sëñ Tuubaa moom Rasulullahi moom yàlla nii laa noonu la ko Baye Mourou Mbaye Sane nee na noonu la ko tegalee. nee nu del siwaat naar bi yëkkati ca booba ca yooya jamono dam-dam ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti dërëm ne jox ko Baye Ibrahima Cuun Samba ne man mi ànd na yëbra coon nekk mu jox ma mu jox ma ñeenti junni ak juróom fukk ñu ak juróomi téeméer muy asbuna laahu ni'mal wakiil salaatu boobu noonu tijaan yi sakar rabbi laa ilaha illallah soo ko asafee mooy sallallahu ala muhammadin mooy trois cent soixante-huit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 ne ban jubee Cheikh Rafal di ko wax si Cheikh daa fa daa nam loxo ya ca kaw la ma liib ko nii suñ faral defee xala gi tiim jumaa ji ci sooroon bi def nii loxo ya ca kaw daal hee doom sama wax ne ka na sëñ Bàmba te lu ñor sëñ mu ñu rusulaay lu ñu rusulaay ñu ñor yàlla suñu borom ak malayka yi <coughs> daal ni ah, yaaram mu ni faal mu ne nañ mayu saa bopp ma xool ndax surgam loo ko man-man mu lekk lu borom kër gi yëgut te lu surga sañet sañet yi sañ ni regg naa may leen ma saa boppee eh.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 daan ni bàyyi munu mbéy mu ni faal mun ko jox ma tarmus gi jox jox ma naanu gi gën lay wax mu jox ko gën gi mu boole jar xorom pol jinjër poowar waaw moo ngi dañ daan gis ñi saxar xamuñ lu xew ñu ni pon lay tox waaye Cheikh Fall mosut a ngank pon doomam yooyu demoon soldat mosu ñëw tuxaalee pon waaw jar xorom poli jinjër poowar loolu ñu rukk def ko ci saako indi ayu bale ko waaye su ne bi mu soxee gën gi ba noppi toog nga indi doju béy wi doju bi birkatu ko fi solee mu kos doju bi galaase ñu indi luy taal mu galaase bàyyi Ibra Cuun nee mu ne ma Ibra Cuun ma ne faal mu ne indi ma tarmus bi def galaas naan kafe gi nee ma indi tarmus bi di faxas nees bi nees bi wadd nee ba sëñ bi su faal ni ko nees bi ne tàcc wadd fi suuf nee mu taal seen gën gi ni ci toq kafe toq mu mel ni birkat ma xam ne ku suppi galaas sawara lu mu la dig àddina ak àllaaxira na ko nee ma yuuxu ni gars yi ku defe dee ma sëq la sargal ci biir géej gi sëñ Bassirou Fall doomi Cheikh Fall jéeg sëñ Fallu Fall sëñ Ablaye Fall la kenn du dee te ñibbi wunu sëñ Fall ne ko bul ko waxaat bu leen ma limaale man pare naa Si taw Alaaji Mali ni ko man pare naa ne maam Cheikh daan ne ah, Yaram Mbay mu ni Fall ma sàmm Njaay wàqi Ibrahima Ngoone Njaay Taala Njaay wàqi Murgey Maaraw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 te cinq heures six heures kii bi naaw nuñ ko waxee déclaration yi naaw ñu ne gaal ga teeri na laskari yu kenn labul bàyyil cun ne ne falaa nekk luñ joxoñ ma dagg lu leen tëma def ko ku faatu ma ramu <coughs> bal bu yëkk ci ma aw kenn réyatul kenn kenn déetul ba nu ñibbi si waat Sénégal man Cheikh Fall maa man ko yaa ma boole woon ak gaa yi mu naa ko sàmm naa badar jeex na sàmm naa sa badar ji jeex na naa toog maam Cheikh jëpp ci loxoom ñëw ci kër gii ni ko calme sampal njëndim àjjana ci kees mu kër gii daal ni ko tuutug lu mu kër gi ma la sampal ca àjjana kër gii mbatu ko boppam almet may naa la fu la neex nga jolli fa jëm boo faatu bu yomal xiyaamee mu yóbbul àjjana ji ci xaaroo way ragal yàlla yi laag si waa kër bàyyi yóbbal tuun saamu Sharafal bàyyi mudu Ibra Cuun Samb naara ngoog noonu laa ko xam noonu la